mbokk yi am nañu mbégte ñëw ak yéen si li nga xamante ne moom moo jëm si wàllum euh, justice tey ñu koy waxtaanee si mbirum Ousmane Sonko bi nga xamante ne euh, démb euh, justice daal na ko joxaat dëgg gannaaw bi nga xamante ne juge Sabassy Faye joxoon na ko dëgg fii nga xamante moom mooy tribunal d'instance bu Ziguinchor avocat état defoon li nga xamante moom mooy recours jëmale ko fële fi nga xamante ne moom mooy cour d'appel ba ñooñu. Eh, ne jugement bi dañ koy eh, defaat kon eh, boobu jugement dañ defaat ci nga xamante ne moom mooy tribunal d'instance bu Dakar boobu tribunal rek moo daal di ko joxaat dëgg daal di ne fokk ñi réintégrat ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko si liste électorale mu mel nii day dëggal li nga xamante ne loolu la Sabassy Faye waxoon si tribunal d'instance bu Ziguinchor moom tamit loolu la daal di diggaloon ba tax na ay wax jógoon ci di naan ki nga xamante ne moom mooy Sabassy fay amoon na mbokk boo xamante ne mu ngi doon liggéey ci mairie Ziguinchor nekk ci euh, euh, magistère Ousmane Sonko ci mairie boobule euh, ba tax na loolu indiwoon coow ba ñi nga xamante ne ñoo nekkoon avocat état yu bu mbir mi ci cour d'appel cour d'appel boobu nag moo yóbbu mbir mi fi nga xamante moom mooy tribunal d'instance bu Dakar boobu tamit daal di joxe dëgg ki nga xamante moom mooy Ousmane Sonko waaye ba léegi mel na ni avocat nguur gi pareeguñu ñu ngi. en tout cas bëgg dem fi nga xamantene mom moy euh, cour de cassation pour euh, defaat benen euh, appel loolu nak mu nek lo xamantene mu xawa a jaaxal ñu bari dem cour d'appel ñëwaat tribunal d'instance bëgg a delluwaat fi nga xamantene mom moy cassation ñu bari japp ne xëy xam nañ ni Ousmane Sonko am na dëgg waaye dañu bëgg a retardé li nga xamante ne moom um, mooy mbir mi ba Ousmane Sonko du mën a nekk candidat ñi nga xamante ñoo faree tamit si Ousmane Sonko ñoom nee nañu pare nañu si Euh, jeu bi nga xamante ne avocat wala nguur gi mu ngi koy euh, def pour mun a gàllankoor kii di Ousmane Sonko mu nekk euh, candidat ci élection présidentielle bu 2024 mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal waaye tamit di leen gën a ñaax rek ngeen topp li nga xamante ne moom mooy seen chaîne YouTube site web pour mun a am bépp xabaar boo xamante ne dina bàyyeekoo fi nga xamante ne moom mooy Ziguinchor waaye tamit dina bàyyeekoo si Sénégal pour ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk bitim réew loolu nag mooy li nga xamante ne moom mooy euh, euh, xibaar yoo xamante ne euh, dina fi dal di jógee kon di len ñaax ngeen wéy di abonné au chaîne YouTube wéy len di abonné pour am bépp information à la minute près